bi maa ngi gërëm euh, teewaayu monseigneur ak kilifa jàngu yi fi nekk kilifa diine kilifa aada donc directeur euh, yi fi nekk ñëpp gannaaw loolu eh, ma nekk porte parole récipiendaire du jour ma wax ci vraiment kàddu yu gàtt gërëm ñëpp ñi fi teew mais gërëm gërëm euh, waa enseignement catholique ñi nga xam ne ñoom ñooñu en tout cas may ñoo am opportunité di mën a eh, jàppale suñu njaboot donc gërëm ñu nga xam ne eh, ñooñu jàpp eh, wutal ñu liggéey ba ñu mën a sutarlu di yar suñu doom ak di yor suñu kër gërëm tamit suñu collègues yi nga xam ne ñëw nañu tey gunge si ñu donc ndege lii vraiment nekk na xew jàmm nekk na lu rafet saa yu ni demee retraite bépp jàngalekat ñu sol seen tënu vraiment ñëw et gunge si ñu ñu yendu fii mais yaakaar loolu lañu mën a wax fraternité enseignante et gannaaw loolu vraiment ñu gërëm suñu waajur yi nga xam ne ñoo ñu dugal école sonn ci ñun ba tey ñu doon ku góor wala ki jigéen ki ñu nekk tey ñu ngi gërëm tamit suñu suñu jëkkër wala suñu jabar yi vraiment ñoom eh, eh, am na lu bare li nga xam ne eh, waroon nañu ko Euh, waroon nañu ko mën a am waaye liggéey ba moo jiitoon léegi comme que dem nañu retraite et vraiment dinañu mën a toppatoo léegi suñu suñu jaboot yi waaw euh, donc euh, mu desoon vraiment poème bi ma dédié retraité yi waaw boobu ci nasaraan la xam naa bu ma dikkatee ci nasaraan xëj na ma ma jëlaat ko vraiment gërëm leen gërëm waa en tout cas waa presse gi ni ngeen ñëwee tey couvrir ci événement bi vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant.